Nous vraiment les gens sont très fatigués Nous sommes mais trop. que population mi en danger. Nous sommes en danger loolu nag nekk ay kàddu yu askan yu yeewoo fii ci ANCAPA ñu koy wax an 3 te di ko mu indil leen jafe-jafe ak coono ci wàllum nekkin dem ak dikk rawatina wàllum kaaraange te dara waralu ko lu dépôt conteneur bi nekk fii ci usine Sosenap nekkoon riverain bàjjanu gox ak conseil de quartier ardu nañu ci bile mbir. dépôt conteneur bi euh, ñëwum fii métti nañu trop. maanaam def ñu gàllankoor gàllankoor gi mooy euh, dëkkuwaay gouvernement ak administration lu ñu fonkoon la maanaam dañuy def ay étude d'impact environnemental mais lii bu ñu fi jëlee woon li nga xam ne moo fi nekkoon moo di benn société de la place bi fi nekkoon gars yi Ageroute di defaraat tali bi ak APIX ñu jëlee ko fi il a été dédommagé mais ñu jëlee fi quelqu'un ki nga xam ne day encombré ñu jëlee indi fi keneen ku nga xamne mo moo ëpp encombrement loolu euh, defarul mu ngi melni nga soti mbalit ñëwaat sottaat ci mbalit bo balay ba mu set do fa soti mbalit non la mel sama gis-gis moy ki warul nek fi buñ defé étude d'impact d'environnement bi environnemental di nga xamne ne du place am mais nak si ben côté ñun def nañ ci li ñuy war def séti nañ ñi ñuy war a parce que tamit dëkk dañ fi nek organisé dañu xëy rek gis ko fi tàgguwuñu

de la route de risque. dépôt bi vraiment ay danger rek ay danger rek lañ indil parce que suñu population mi ngi en danger parce que conteneur le fait que muy chargé ci koñ bi di de di dem di danger pour askan bi parce que lan mooy danger parce que mon na du coup ci koñ bi dajee xale on sait jamais va et vient dugg beeg guen, bi sonal nañu lool bruit bi mënuñoo nelaw surtout ñu dëkkee ci en face mon nelaw mënuñoo noppalu ndax chaque jour ñu ngi dem di ñëw ñun nag danger boobu la wax. pour danger pour suñu askan suñu njabootu dëkk suñu gox loolu la ñuy jooy pour centrale bi ñu xool fu ñu koy jëlee ñu isolé ko fii yëpp soit ñu yóbbu ko ba jam ñaajo côté yooyu foofu isolé wu na mais fii comme population baa ngi fi ñu éviter daal lu mel nii di ko di ko implanté ci biir dëkk bi loolu daal la ñuy la ñuy la ñuy jooytu di woo Macky suñu président Macky Sall mu saafaraal ñu lii parce que ñun amuñu lu ñu fayee avocat amuñu lu ñu lu dul jooy rek ñun. suñu lami rek lañ am pour wax ak mom mu jëlee fi lii xool fu mu koy isoler fo xamné ne ni day sori population bi lool rek lañ soxla. am na ay démarches yoo xam ne nañ ko ci def euh conseil de quartier en trois conseil de quartier en village ak conseil de quartier en marinance avec euh, le président Bass ñu ci si doon liggéey depuis presque deux mois ñu ci siy liggéey bon defoon nañ ay ay ay ay plainte au niveau de l'APIX am défal ampliation gouverneur pour que li parce que ku ko xool xam vraiment li c'est pas normal xëy tay sax camion yi bëriwuñu wuñu motax euh, affaire bi xaw a touti mais ku ne xam na ne ku fi ñëw jour ouvrable kenn du dugg kenn du génn te conteneur yi buñu taxawé ni ba amuñu fuñu ki ci kaw talibi lañuy taxaw ci biir dëkk bi lañuy jaar te lolu je pense que luñu wara taxaw setlu la parce que conteneur yi jaar ci biir dëkk bi ku ne xam déjà talibi amul sécurité ay xalé ñoo fi dëkk ni dëkk bi démé ñëpp dañuy xey liggéey bàyyi fi seen doom yi donc suñu suñ ci waxul rek il faut jéye am pour que nit ñi jog mais li man ñima ci wo du trois conseils de quartier yooyu damay wo amical des conseils de quartier de la commune ñëpp ñoo wara a jug xeex lii buñ ci jógee mo wo aussi la population hannoise parce que li aussi du affaire wu yaraax en trois wala kii affaire u yaraax yëpp parce que fi bu jàllul ba montagne dañuy japp ne embouteillage mu ngi fofu kon ku ne xam na ne li di xew fi pour man nit ñi dañ wara jog taxaw xeex ko. vraiment c'est invivable mënuñu dund ak li ñu ngi am pollution sonore ñu ngi am euh encombrement ñu ngi am danger public nga xam le conteneur bi nga xam ne dafa tim ay kër danger public la amna na nga xam ne xewoon na fi à Marinas ñom dañoo constitué en pôle outil seen avocat attaqué ko heureusement administration ña fa un ñu nekk ay gens de responsable xamni def étude d'impact environnemental jox riverain ou habitant marina yi deug ñu fa ils ont gagné dans leen dañ en justice mais nak ñun dañ ko jaarale fiñ ko jaarale mais ba légui amul retour autorité yégal nañ ñep mais amul retour bientôt il mu def un an kon où est le problème où le problème am na a mu quoi ah, on interpelle le directeur de l'APIX le directeur de l'APIX on l'interpelle parce que jox nañ ko correspondance et le gouverneur fi ñu war a yóbbu de nañ fay lettre ku ne On na ne terminal conteneur waru fi implanté parce que nous aussi taxi li wax terminal conteneur warul dépasser domaine portière bi te domaine portière bi ku que xam na ne fële la yem ci kon bu ñëwé ba fi ñu am fi ñaari terminal conteneur ñu jóge fofu ñu dem ba ci kanam en montagne ñu amat fa benen terminal conteneur ku ne xam na ne yaraax kenn fi dugg kenn dootu fi génn nit ñi nak vraiment sonn nañ les gens sont très fatigués xeyna ñi bëgg nañ ko wax ñii bëgguñu ko wax mais nit ñi sonn nañ trop. pour la municipalité sérieusement pour dire vrai lëkkaloowuñ ci ak ñom parce que je pense que euh, li sen combat la waron njëkk nek ñom la population ñëw en appui xawma nak luñ ci def mëna am ñu ngi ci yëguma

parce que xoolal conteneur yi nga yeb ko dugg ci biir askan bi mën na on sait mën na daanu ci kaw nit ñi mën na daanu ci kaw xale yi mën na mbëkk xale yi kenn xamul lii bu ñu koy def dañ koy def foo xam ne nii day sori askan bi day sori njaboot gi loolu la ñuy jooy loolu la ñuy ñaan parce que lii danger la danger bu mag la da ngay gis ñoo xam ne dañuy bëgg a ñëw ci dëkk bi jóge ville bëgg a jël taxi taxi yi dañuy naan yaraax duñ fa ñëw parce que conteneur yi moo tax ñu ne duñ fi ñëw duñ bëgg a dugg sax yaraax duñ bëgg a ñëw yaraax koo ne yaraax mu ne ah yaraax moom ndax lan conteneur yi loolu nag ñu ngi koy déplorer vraiment di ñaan autorité yëpp ñu ñëw dimbale ñu ci lu mel nii jóge fi ñu isolé ko fii yëpp yëpp mu génn ci dëkk bi daal loolu lañ la ñuy ñaan